dafa <laughs> danga maa bëgg a siiwal. ah mais dañuy génn kay faaw mu siiw. ne woon boo amee di eh, boo ko bëggee da koy wane. te <laughs> système boobu. <laughs> wane def fii. fii fii fii.